xaaj bu njëkk bi ci ñetti xaaj yi nettali bi mu ngi aju ci li xew gannaaw bi yeesu yéege asamaan xel mu sell mi moo xiir luk mu bind ci loolu ci téere jëf ya luk bind na itam benn ci linjil yi gannaaw bi yéesu yéege asamaan taalibe yi dellu yerusalem fàttaliku leen ne laata ñu daj yéesu ci bant bi yéesu wax na ay taalibeem ci mbirum xel mu sell mi wax na leen ne gannaaw yéegam ci asamaan dina yónni xel mu sell mi ci linjil yéesu wax na te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dëgg gi àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen yowaana saar fukk ak ñeent aaya fukk juróom benn ak aaya fukk juróom ñaar balaa mu yëg asamaan yeesu santoon na taalibe yi ñu toog yerusalem ba xel mu sell mi wàcc ci ñoom kon taalibe yi daje daldi ñaan ca yerusalem pierre ne war nañu tànn kenn ku wutu yuda ki ñuy tànn waroon na nekk ku àndoon ak ñoom ca njëlbéen ga ba bi yéesu yéege asamaan ñu ñaan ba noppi tegoo ay bant bant bi dal ca macaas noonu ndaw yi nekkaat fukk ñaar léegi am na ay laaj saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi ganaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu. benn kan la yeesu dig taalibe yi dina ko yónnee gannaaw yéegam ci asamaan. dig na taalibe yi ne dina yónnee xel mu sell mi ngir mu nekk ak képp ku gëm yeesu ñaar lan la taalibe yéesu yi def gannaaw bi yéesu delloo asamaan dañu toog di xaar ca yerusalem ba yeesu sob ci xel mu sell mi